alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim ya himmata cheikh ahduri lana bi hada almahdari waltatufi bi nasratin taati lana bi safar mbokki wa jaadilhum billati hiya ahsan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara te di leen ndokkel di delsiwaat nag eh, gannaaw boo xamee ne ustaas bi nga xam ne mooy abu muhammad jël nañ ko dugal ko suñ poos ñu déggaat fi yeneen ñaari mbokk yoo xam ne yëkkatiwaat nañ kàddu muy ku mel ni abu dujaanata ak meneen mbokk mooy maam góor su ma juumut maam góor njaay xaw ma maam góor jasaaka la ñu yëkkatiwaat seeni kàddu ma bëgg leen i boole ñoom ñaar taxañaat leen dugal leen ci sama beneen poos bi ngir continuer demaat di xaar leneen ñaari mbokk yi bu ngeen dégloo seen audio kenn ku ne ci ñoom dafa sukkandiku ci benn laaya wane ne yonentu alayhi salaatu salaam dafa yàlla daf koo wax ci ajjatul widaa ne al yawma akmaltu lakum diinakum maanaam laayaab al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum yi wa raditu lakum alislaama diinan mooy tegtale ne diina ji mat na dara dootu ci delloo kooti lii tegtale ne ñoom dégguñ aaya yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ak lii tegtale seen maanaam adduma amaana ilmiya maa ñàkk ma maanaam ñàkk màndu ci xam-xam mooy isticmaalul ayat fi gayri mawaadii di jël ay aaya di ko istimaal ci barab yoo xam ne du barabam léegi damay ñëw ci jëmmi laaya ji balaa maa ñëw ci masalan li nga xam ne moom la laaya ji wax ngir ñu man koo dégg jëmmi laaya ji nekkul laaya ji mujj wàcc ci alquranul karim olamaa yi dañoo uute ne laaya ji mujj te wàcc ci alquranul karim te danaa ci ñëw benn par benn dafa am ñoo xam ne dañoo wax ne laaya ji mujj wàcc ci alquranul karim mooy laaya ji suñ borom wax ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allahi summa tuwafaw kullu nafsin ma kazabat wa hum laa yuslamuun ñu ne laaya ji moo mujj wàcc ci suratu baqara ci aaya deux cent quatre-vingt-un boo demee ci xaafis ak jalaaluddin asuyuti rahmatullahi alayhi dafa wax ne maarifatu axiri ma nasala fihi ixtilaaf maanaam xam li mujj wàcc ci alquran loolu dañ ci am al ixtilaaf mu ne buxaari yi solo na maanaam ak muslim mooy fa rawa sayxaani an bara ibnu asib ñu wax ne axiru ayatin nasalat mooy yastaftuunaka qulillahu yuftiikum fil kalaala ñu ne laay jii moo bujj wàcc su fekkee ne dañoo jàpp ne al yawma akmaltu lakum diinakum moo njëkk wàcc moo mujj wàcc maanaam moo njëkk a ji moo ko njëkk wàcc maanaam wala laaye jooju moo mujj a wàcc laaye ji ñu jàpp ne moo mujj a wàcc kon gannaaw al yawma akmaltu lakum diinakum am na beneen laaye ju wàcc di jàngale ci mbiru kalaala maanaam ak ndonelam te loolu ci lislaam la bokk kon loolu dafay dàq ñoom maanaam ni ñuy istixmaale laaye ji beneen bi ci def imaamu Nasaa'i yi génnee ci benn xadis boo xam ne maanaam mu ngi jaar ci Ikrama mu jógee ci Ibnu Abbas mu wax ne axiru seyin nasala min alquran wattaqu yowman turjauna fihi ila allah loolu bokk na ci li nga xam ne moom mooy tegtal ñaareel bi ci tegee eh, su ko defee maanaam ñaareel bi tegee mooy am na sax beneen riwaaya boo xam ne imaamul Buxaari ci boppam moo ko solo te lii yëpp ci suñuy téere la ñun ahlu sunna wal jamaa wala boo gannaaw ñoom dañ ñu ci génnee ñoom ahlu sunna wal jamaa muy riwaaya boo xam ne mu ngi jógee ci ibnu abbas mu wax ne axiru ayatin nasalat ayatu riba maanaam aya riba moo mujj wàcc ci alquran mu yaa ayuha alladina amanu ittaqullah wa saru ma baqiya min arriba bu fekkee ne aaya ji moom mujj a wàcc kon al yawma akmaltu lakum diinakum gannaw bu mu wàccee am na beneen laaya di wàcc di wax ci mbiru riba te loolu ci mbiru diina la aboubacar al dafa wax ne uute bi sahaaba yi uute ci laaya jan moo mujj a wàcc ci alquran gannaaw bu mu tuddee ixtilaaf bi ba noppi dafa wax ne maanaam amul lenn ci riwaayaat yi yoo xam ne maanaam riwaaya marfuu la boo xam ne dañ ko yëkkati ba mu yegg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu dul ne kenn ku nekk ci ñoom dafay wax ne dégg naa ci yenentu bi nàngam mu ne loolu kon liñ ci mën a jàngee mooy taxlibu sanni la maanaam kenn ku ne dafa am lu ñuy tuddee taxlibu sanni maanaam sa njort moo njort laaya jii mujj wàcc ndax moom nga mujj dégg ci yenentu bi alayhi salaatu wasalaam waaye tegtalewut ne laaya jii moo mën a moo mujj wàcc mu ne loolu nag li muy li muy buñ ko càmbaree li muy li ñuy jàngat mooy maanaam ñoom amul kenn koo xam ne li nga wax ne laay ji moo mujj a wàcc jàpp ne lii lu wér la kon jàpp naa ne su fekkee ne lii am na aadi su leer nañ wàcc ci boo demee sax ibnu abi xaatim jëlee na ci saïd ibnu jubayr mu nett li mu ne axiru ma nafaran min alquran wattaqu yawman tarjiuna fihi ila allah kon laaya jooju sax moo ëpp lu ñu wax ne moo mujj a wàcc ci alquranul karim ku mel ni ibnu jarir wax na lu mel noonu jëlee maanaam wax na lu mel noonu ci yoon boo xam ne mu ngi ko jëlee ci atiyata mu jëlee ci abi saidin mu ne li mujj wàcc mooy wattaqu yawman turjauna fihi ila allah beneen bi ci tegee mooy ñi wax ne ayati riba moo gën a wàcc moo moo mujj wàcc ku mel ne abu ubaydin moom itamit indi na ci alfadail ci hadis boo xam ne maanaam ci yoon bi jaar ci ibnu zihabin mu wax ne aqiru quranin aqiru alqurani hahdan bil arsh ayatu riba mooy aaya bi mujj jot ñëw ñu ñu miin ko ñu xam ko mooy ayatu riba boo demee ci musta euh, boo demee ci euh, téere boobu ñu tuddee mustadrak maanaam am am na riwaaya boo xam ne mu ngi jógee ci ubay ibnu kaabin mu wax ne aaya bi mujj wàcc mooy laqad jaakum rasulu min anfusikum ba tey ibnu mardawiya génnee na ba tey wax ne li mujj wàcc ci alquran ñaari aaya yii la mooy laqad jaakum rasulu min anfusikum dégg nga ak beneen laaya ji ñoom mujj wàcc ci alquran maanaam kon loolu li muy tegtale mooy kon wérul sax ne laaya ji mujj wàcc ci alquran moom mooy li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy laaya ji di ñuy wax ñoom di ñuy layee dégg nga kon jàpp naa ne laqad jaakum rasulu am na ñu wax ne moom mujj a wàcc te loolu boo demee ci al itqaan eh, maanaam fi ulumi al quran da nga fa fekk wax ju mel noonu wala nga dem ci tafsir ibnu kasir wala aafis ibnu ajar moom itamit indi na ne asahul aqwali fi axiri ayatin mooy wattaqu yawman turjauna fihi ila allah kon même xaafis même même xaafis ibnu hajar al asqalaani ci boppam moom lim nettali moo wane ne laaye ji nga xam ne moo mujj wàcc duut al yawma akmaltu lakum diinakum kon ñoom liñ ciy tegtaloo loolu dafay dàqu ma ñëwaat beneen bi ci tegee mooy masalan al yawma akmaltu lakum diinakum dafa am lu muy jàngale yonent bi alayhi salaatu ci xadis bu wér imaamul buxaari yi génnee na xadis bi jëlee ci abdullahi ibnu omar radiallahu anhuma mu ne yonentu alayhi dafa wax ne buniyal islaamu ala xamsin shahadat an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulallah muy benn wa iqama salaati muy ñaar wa itaay sakkaat muy ñett wa sawmu ramadan muy ñeent wa hajjil bayt muy juróom da nga fekk laftu yoo xam ne wa hajjil bayt mooy jiitu wa sawmi ramadan nga fekk léegi-léeg laftu wa sawmu ramadan wa hajjil bayt léegi nag ban sarta ci sarta yi moo jiitu ban ponk ashadu an laa ilaha illallah moo jiitu ndax yonentu bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee ponk biñ doon duggee ci lislaam nekkutoon julli nekkutoon woor danga daan wax rek ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñu ne la bokk nga ci maanaam dugg nga ci diina lislaam gannaaw si bi la julli wàcc maanaam julli kañ lañ farataal julli loola boroom xam-xam ci boppam dañ ci am uutee masalan mooy julli juróom yi ak julli yi nga xam ne mooy ñaari rakkaay yu ñu daan def waaye ala kulli xaalin li am mooy ñii ne faratal nañ julli maanaam ci ñetti at njëkk gàddaay ga ñii ne faratal nañ julli maanaam ci al isra wal ci lañ farataal julli juróom yi loolu yëpp am na riwaayaat yoo xam ne dana tegtale loolu nga xam ne moom la maanaam yenn ci borom xam-xam yi sukkandiku ci heure bi nga xam ne ci lañ farataal li nga xam ne moom mooy julli mbokk yi bu fekkee ne def nañ jàngat waaw bu ko defee yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu dee ci jullit juróom yi buñ demee ci xadisu Buxaari bu trois cent quarante neuf wala ñu dem ci muslim cent soixante deux jëlee nañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu nettali xadisu al isra bi nga xam ne bu siiw la mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa wax ne yàlla wax yu na ma farataal ci man juróom fukki julli ci bis bi nee na ma wàcc ba ñëw ba ci Moussa alayhi salaam mu ne Moussa na ma naata la yàlla farataal ci yow ci julli ma ne ko juróom fukki julli mu ne ma dellul ci sa borom mu ñaan ko ak taxfiif mooy mu wàññil la mu ne dañu ma di dellu di dellu ba mu nekk juróomi julli loola nag muy laylatul isra kon am na borom xam-xam yi maanaam moom ñëpp dëppoo nañ ne julli juróom moom ci lañ ko farataal waaye nee na njëkk loola saaba yi farataaloon nañ ci julli daal nañ julli ñaari rakka ñaari rakk kon ulamaaw yi dëppoo ci loola boo demee ci fatul baar yi bu ibnu rajab da nga fekk wax jooju hafiz ibnu ajar dafa wax ne ci guddik al isra wal mi'raj njëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gàddaay ci at ak genn wàll ci lañ farataal julli juróom kon loola boo ko boolee ak wax ji ñu wax ne maanaam farataaloon nañ julli ñetti at njëkk gàddaay gi kii ne benn at ak genn wàll balaay gàddaay gi kon da jàpp ne saaba yi njëkk julli juróom daan nañ julli ñaari rakkata faratala woon ci ñoom léegi na kon kanaa bu ñu ne lislaam juróomi ponk la ñaar yi ñëw nañ li njëkk mooy sahaadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah moo lay dugal ci diina ji ñaareel bi mooy maanaam euh, euh, jox maanaam iqaamati salaat mooy nga taxawal julli moo la ciy dugal ñetteel bi mooy li ñuy tuddee maanaam itaaw sakkaat mooy joxe asaka gis ngeen ne yàlla ñaare fu mu tuddee julli rek dafay tudd li nga xam ne moom mooy asaka loolu nag lu muy tegtale mooy asaka ak julli kenn mu leen da tàqale lii moo sabab Malik ibnu Nuwayra bi nga xamee ne Xaalid ibnu Walid attaqué na leen mu bokkoon ci mbooloo mi àndoon àndoon ak Sajaatu bintu Xaaris sa dem xeexi woon ak Musaylimatul Kazzab ba la ca xew xew ca ñoom ñu retourné bañ ne duñ joxe asaka dañuy continuer murtat bi ko xaalis jàppee dal di ko laaj ne ko lan moo tax nga bañ a joxe asaka dafa wax ne asaka sama alal la maa ko moom nu ma neex laa koy doxalee ba mu waxee loola yenentu bi alayhi salaatu wasalaam wala boog Xaalid ibnu Walid dal di ko wax ne ko déedéet demee wut noonu de asaka aqu yàlla la ci sa alal da ko war a joxe mu ne ko loolu dee la seen waa ji wax loola moo doon sababu Xaalid rey Malik ibnu Nuwayra ba gaa ñi ñëw boole ko ak Seydina Aboubacar Sadiq radiyallahu anhu ba Seydina Omar meroon ci loola. ba ne Seydina Aboubacar lu tax mu di ko rey te Malik ibnu Nuwayra wax ashadu an laa ilaaha illallah yonente bi alayhi salaatu wasalaam kii Seydina Aboubacar ne ko. amar ndax da ngaa fàtte ne yenent bi wax wax ne umirtu an uqaatila naasa atta yasadoon laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa aqamu salata wa atu sakata fa in faalu dalika faqad asmo bi aqillah illa bi aqillah ya omar loola ca njëlbéen ga biñ murtadee sayidna omar dafa taxaw ne sayidna aboubacar ñii doo takk xare jàkkaarloog ñoom sayidna aboubacar na ko dinaa xare mu ne ko doo ko def ndax gëm nañ yàlla te ñu ngi julli sayidna omar bi mu jàngee laaya ji ba noppi wala hadis bi ba noppi Seydina Aboubacar daf koo ne ko illa bi aqillahi kon asaka xaqullahi fi amwalil muslimina yaa Omar kon kañ lañ farataal asaka asaka ñu ngi ko farataal ci atum maanaam ci weeru suwaal ci atum ñaareel mi ci gàddaay gi gis nga kon julli njëkk at ak gi léegi nag julli mooy ñett mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy lan mooy asaka asaka ñu ngi ko farataal ci atum ñaareel bi ci gàddaay gi lañ farataal li nga xam ne moom mooy asaka kon loolu leer na léegi nag mu def ñaata mu def weeru koor ak lan maanaam ak aj makka kon ñaar yooyu ñoo def ci ponki lislaam léegi kañ lañ farataal xaj kañ lañ farataal weeru koor weeru koor wax nañ ne maanaam maanaam euh, koor ci boppam dafa am marxala ñaari marxala marxala bu njëkk bi mooy or giñ daan or bisu fukkeel ba ci saaru muharram ak yow ma asuraat dégg nga koor googu nga xam ne jaa gaa ñi dañ ko doon def ci jamono jaahiliya yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ko def ba bim ñëwee Medina di ko def am na xadis yu bari yu ci wàcc ba gannaaw si gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne man saa saamahu wa man saa tarakahu ci xadis boo xam ne jëlee nañ ko sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha kon loolu lu leer la beneen bi ci des mooy marxalaab ñaareel bi mooy marxala bi nga xam ne dañoo ñëw folli yawma asura bi maanaam ci farataal gi yàlla wax ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ayaaman maadudatin fa man kaana minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayaamin oxra ba aaya ji jeex maralaab ñetteel ba mooy bi nga xamee ne nag maanaam yàlla wax na ci alquran ne sahru ramadan alladi unsila fihi alquran maanaam weer wii di weeru koor ci la yàlla wàccee alquran dégg nga ba tekki na huddan linnaasi dégg nga wa bayinatin min alhuda والفرقان فمن شهد منكم السهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى bam jeex kon loolu dafay tegtale ne kon maanaam ci ñaareelu at bi moom it jëm ci ñetteelu at bi kon ñetti ponk yépp wala ñeent yépp ñëw nañ sahaadatu an laa ilaha illallah ñëw na iqamatu salaati ñëw na itaai sakaat ñëw na sawmu ramadan ñëw na mu def benn mooy ban mooy xajjul bayt kenn lañ farataal xaj xaj ñu ngi ko farataal borom xam-xam yi dañ cee am uute xaaral ma def ko ujoo boppam waaw bu ko defee léegi maanaam xaj bi nga xam ne ñoom ci lañ bëgg a sukkandiku aj kon mooy dernier ponk bi nga xam ne farataal nañ ko kenn lañ farataal xaj boo demee ci seen sëriñ bi ñuy tuddee ibnu Usaymin dafa wax ne xaj ñu ngi ko farataal ci juróom-ñeenteeli at bi ci gàddaay gi maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëkk loolu maanaam farataaluñ woon aj di leen am na ci riwaayaat yoo xam ne dañoo wax ne yenentu aj na nangami yoon waaye aj googa nekkutoon ay xaj yoo xam ne farata la ci moom waaye yenentu bi ñu defee bi ñu farataalee aj ci moom benn yoon la dem aji loolu moo tax maanaam boo demee ci ibnu Usaymin moom dafa jàpp ne maanaam ci atum juróom-ñeenteel bi la ci gàddaay gi bu fekkee ne ci atam juróom-ñeenteel bi ci gàddaay gi la te moom li lim tegtaloo mooy laay ji yàlla wax ne walillahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabilan mu tegtaloo loola même buñ ko ko nangulee kon dañuy jàpp ne xaj mooy ponk bi mujj nga xam ne juróomi ponk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci hadis bi nga xam ne imaamul Buxaari yi indi na ko ma jàng ko léegi yéen ñëpp ngeen dégg ko mooy wax ji mu wax ne buniyal islaam ala xamsin sahadata an la ilaha illallah paase na wa anna muhammadan rasulullah wa iqamati salaati joxe as euh, taxawal julli maanaam mu ngi ci at ak nisfu maanaam njëkk gàddaay gi wa itaay sakkaat mu ngi ci atum ñaareel ma ci gàddaay gi wa wa sawmu ramadaan moom itamit naka noonu euh, dégg nga yonent bi alayhi salaatu wa sawmu ramadan naka noonu moom itam mu ngi ci atum ñaareel mi ci maanaam gàddaay gi yonent bi alayhi salaatu wa salaam juróom-ñeenti weeru koor la woor juróom-ñeenti weeru koor la woor te loola boo demee ci almajmuwa bu euh, ki nga xam ne mooy imaamu nawawi indi na ko wax ne yonent juróom-ñeenti weeru koor la woor ndax li tax mooy ñu ngi farataal weeru koor ci ñaar ci saabaan weeru saabaan ci atum ñaareel ma kon atum ñaareel ba ca atab bi nga xam ne mooy atab fukkeel ak benn bi yonent bi gaañu kon juróom-ñeenti weer la yonentu oor kon li wétta wér mooy ba maanaam weeru koor ci ñaareelu atu gàddaay gi la léegi nag mu des li nga xam ne moom mooy maanaam asaka jàng nañ asaka mu des lan mu des li nga xam ne mooy xajjul bayt aj nag laa wax ne boroom xam-xam yi sax dañ cee uute maanaam wax yu bari wadd nañ ci maanaam am na ñenn ñoo xam ne nett li nañ ne aj gi aju yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala aj ñu ngi ko farataal ci atum juróomeel ci gàddaay gi te bokk na ci ñi toxal loolu abul faraj ak jawsi maanaam wax na loolu te xam ngeen ne loolu wax dëgg yàlla buñ xoolee yonent bi alayhi salaatu wasalaam danañ xam ne maanaam bi mu jëmee màkk ci atum juróom-ñaareel ba ci gàddaay ga la jëmoon màkk def xadaaw la umra ba mu waroon a def mu génnoon te la ca xewoon xew ca ñu ñëpp xam nañ loolu ñu gis ne it gannaaw si maanaam ci atum juróom ñett ba dégg nga la dem màkk ngir ubbi ko ñu teg ci ci atam atam juróom-ñeenteel booba maanaam ci atam juróom-ñetteel booba dégg nga muy atam juróom-ñeenteel ba la ebal xaafila bii di Seydina Aboubacar Sadiq ñu aji gannaaw bu bu yàlla farataalee aj Seydina Aboubacar jiite aj ga mu yónniwaat Seydina Ali ci gannaaw ga mu jot ko loola am na wax yu bari yu ci siya yi di wax imaamu Nawawi dafa wax ne xaj imaamu ne ci boppam sax toxal na wax ne aj ñu ngi ko farataal ci atum juróom-benneel ci gàddaay gi wax na lu mel noonu ne xaj ñu ngi ko farataal ci juróom-ñetteelu at ci gàddaay ga dégg nga euh, euh, almawardi wax na ne at ñu ngi ko farataal ci juróom-ñeenteel ba comme ni nga xamee ne noonu la ko ibnu Usaymin saxalee kon borom xam-xam yi sax dañoo uute ci aj gi kañ la woon waaye li wér ci wér mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn aj la aj yi ñu tuddee ko ajatul widaa aj googu nag ci la doon defee xutba ba ñoom bi bi nga xamee ne aj na ba noppi moom yonent bi balaa muy bi muy aj dafa wax ne jël leen seen jaamu yàlla ci man mu jàngal leen nu ñuy ajee aj yi nga xam ne lislaam farataal na ko bu mu paree nag la def xutbaam gu siiw googa ca biir xutba googa nag la wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum dégg nga al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum islaama diinan kon diina ji mat na mu ngi ci jublu ne ponk diina yépp mat na parce que léegi saadatu an laa ilaha illallah jàll nañ ko ponk la ci lislaam képp ku ko bàyyi bàyyi nga ponk ci lislaam iqaamatu salaati ponk la ci lislaam farataal nañ ko bu yàgg itaay sakkaat mooy joxe asaka farata ponk la ci lislaam farataal nañ ko bu yàgg sawmu ramadan ponk ponk la ci lislaam farataal nañ ko hajjul bayti moo desoon yàlla farataal na ko aj naa ko ak yéen kon nag ponk lislaam mat na loolu la ci yonentu bi alayhi salaatu wasalaam jubla loolu mooy li wér yonentu bi loolu la ci jublu ci aaya yi waaye aaya jooju bokkut ci aaya yi mujj a wàcc maanaam wérut ne moo mujj a wàcc ixtilaaf yi ci am bëri na trop te am na yeneen aaya joo xam ne moo gën a wér ne moo mujj a wàcc aaya jii nii wala boog aaya yi ñu wax ne moo mujj a wàcc aaya bi aaya yooyu am na lenn ci jaamu yàlla yu ci laxasu kon yeneen bi li mu doon jàngale mooy lislaam ponkam yii di juróom mat na bis ni ki tey gannaaw bu mu xajee bi loolu amee nag ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala di wax ne léegi nag bu mu ba pare mu ne képp ku fi ci yéen na jotal ku teewul ku teew ci yéen na jotal ku teewut mooy xutba gu am solo googu léegi nag mbokk yi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati lan moo joteek moom ci benn benn benn tariqa boo xam ne maanaam lépp mu ngi ko sukkandiku ci alquran ak sunna maanaam la muy def mooy istixfaar yenentu bi ne na ngeen jéggalu seen borom muy hadis bu wér alquran wax ne na ngeen jéggalu seen borom istaxfiru rabbakum ci hadis bu wér moom benn waaye bu ñëw taxaw ne masalan benn waaye bu ñëw taxaw ne léegi niñ astaxfirullah yii man téeméer yoon laa koy def sama sarta mooy ni ko yàlla santaane dama koy def téeméer togg gim togg boppam téeméer yooyu di ko ko def ndax da koy wax ne ko kayfiya boobu mu def ko dafa xaraam parce que yonent bi alayhi salatu wasalaam defu ko woon loolu mënoo koo teg fenn beneen bi wax bi ngay wax ne yonent bi alayhi salatu wasalaam kenn mënu koo gis loolu njuumte la njuumte la maanaam mbokk mi abu dujaana sax ak keneen ki loolu njuumte la léegi dama leen laaj benn laaj bëgg naa yéen wahabiste yépp ngeen tontu ma yenentu bi alayhi salaatu wasalaam leer na ne bi mu rañaanee jiite ne mbooleem yenentu yi ci baytul muqaddas loolu leer na te yenentu yooyu yëpp dañoo génnoon àdduna léegi naka la yenentu bi def yenentu bi moom mu ngay dund waaye ñoom dee nañ ñu yenentu bi def ba gis leen ba jiite ba ba ba maanaam ba jiite leen su fekkee ne da ngeen wax ne ab yeneentu rek moo man a gis yenentu bu dee mu gisaat ko wax leen ma lan mooy seen tegtal fu ko alquran wax fu ko sunna wax bu ci yàlla Muhammad gis leen kon lu tax yéen du ngeen d'accord ne yonentu yàlla Muhammad gannaaw bu mu dee danañ ko gis te yonentu yàlla Muhammad gën a foor yonentu yooyu yëpp loolu su àll boo xam ne su ngeen ma ko tontoo ta ngeen màndu da ngeen bàyyi seen caaxaan yi ngeen nekk dellu ci dëgg te xam ne Seydina Cheikh duut ku ñuy duut baaraam duut ku ñuy jam baaraam ndax innahu huwa aalimun kabir wa innahu huwa taqiyun jalil wa innahu huwa seyqul kabir wa innahu huwa habibi wa qalbi wa bahjati wa bahjati su ko defee nag Cheikh Mouhamadul Habib moo doon wax a yéen lu leen ci lënt rek na ngeen indiwaat seen laaj may naa leen seet baa ngi ci groupe bi génneewu leen ma lépp lu leen neex ci xam-xam ngeen da laaj laaj leen ma ko man nee ngeen kenn du wax borom xam-xam laa ah kañ ku xam ne borom xam-xam la man maa ko wax man Cheikh Habib borom xam-xam laa laaj leen ma lu leen neex ma tontu leen may naa leen lu leen neex ngeen laaj salaamaaleykum wa rahmatulah